asalaamaaleykum mbokki internet Hann TV euh, maa ngi leen di nuyu maa ngi tudd Mariam Sy di nutritionniste euh, bokk ci euh, association bi ñuy wax association de nutrition et alimentation du Sénégal tey nag ma fas yéene waxtaan ak yéen indi leen li nga xamante ne nii mu ngi jëm ci wàllu weeru koor bi waaye rawatina nag lépp lu nga xam ne dafa jëm ci suñu lekkin ci biir weeru koor bi. association bi nga xam ne nag ci laa bokk nag dafa amoon na benn jumtukaay boo xam ne dañ koo dañ koo defaroon euh, tënk ci li nga xam ne moom la ñu euh, digal si suñu wàllu lekkin ak li nga xam ne moom la ñu war a naan tamit waaye tamit euh, li nga xam ne moom lañu ñu tere wala li nga xam ne dañu war dañ ko war a moytu ci biir weeru koor bi képp ku soxla jumtukaay bii nii mën nga koo am ci adresse bi nga xamante ne nii mun nga ngeen ko seen ci écran bi weer koor dafa nekk weer bu am solo ci wàllu euh, diine waaye tamit ci wàllu lekkin ndax euh, dafay tax ba lépp lu nga xamante ne nii dafay euh, nekk ci suñu yaram te dafay nekk ay déchets ñu mën koo nettoyer maanaam suñu organisme suñu yaram dafay mel ni lu beesaat yenn cellules yi ñu mën ko régénérer waat ba ñu xamante ne nii dafay nekk daal ay ngëneel yu am solo solo ci suñu wàllu wér gu yaram alors ci wàllu lekk bi nag euh, xam nañ ne weeru koor euh, li ñuy gën a digal mooy di jël trois repas maanaam ñetti repas yi nga xam ne moom la ñuy euh, faral di digal muy suba ji ñu jël ñuy xëdd ñuy ndogu tamit ak bu ñu ndogu ba pare ñu ñu reer ci xëdd bi nag laa bëggoon ñu ko tàmbalee xëdd bi li ñuy gën a faral di conseiller maanaam di gën a ñaax nit yi ñu koy ñu koy topp mooy di lekk-lekk boo xam ne dafay varier lekk boo xam ne dina la indil cawarte waaye tamit dina tax nga am lépp lu nga xam ne danga koy soxla ci wàllu ferñeent euh, ngir mun a euh, fexe ba euh, am dundin bu jaar yoon am lekk bu jaar yoon ci wàllu lekk bi nag ñu ngi digal ñuy jël li nga xamante ne ni mu jóge ci pepp maanaam lépp luy céréale complète maanaam lépp luy dugub wala muy mbokk wala muy ceeb léegi nag loolu nag mun nañ ko togg def ko fonde wala ñu def ko caakiri wala ñu def ko cere donc loolu mun nañ ko jël suba gi leneen loo xamante ne ni nag tamit ñu koy digle ñu pour ñu jël ko muy euh, lu ñuy woowee protéine protéine nag ñu ñu jóge ci yàpp wala ci jën wala ci euh, nen yooyu tamit baax na loolu waaye tamit protéine tamit ñu ngi leen di gis ci euh, lepp lu nga xamne ne ay feuille verte manam mbumi yi feuille mbuum ak tamit euh, ñebe yi wala lentille wala haricot té lool yaakaar naa ne na suñu réew amna suñu réew amna suñu biir gox yi leneen li nga xamne ne tamit ñu koy gëna euh, faratal ci euh, ndogu bi ci xëdd bi moy ñuy jël tamit ay fruits fruits nak na nekk tàndarma na tamit xaal wala mu nek mango wala tamit ñuy jël euh, yenen fruits yi nga xamné bari wu torop suukar yoy la ñuy gën a pour ñu koy jël mën nañ tamit jël banana yoy tamit du am solo la ndax day dañuy nekk fruits yo xamanteni ni duñu bari dañuy permettre ñuy am euh ba heure xeyna na ba heure ndogu manam suukar bi du taal du gawa wacc ci suñu biir yaram leneen li nga xam tamit luñ ko dañ ko wara a bu baax moy di euh, nan ndox suba gi surtout suba gi parce que dañuy tok diir suba ba heure ndogu jot te duñu naan ndox donc dafay am solo lool lool ñuy naan ndox même bu fekkente ne euh, ñaari kaas la ba ñetti kaas ñuy naan ñuy faral di naan ndox ndox bu bëri ngir ñu mun a am li ñuy wax hydratation ngir ñu mun a hydraté bu baax suñu yaram am ndox bi nga xam ne moom la ñu soxla suñu biir yaram donc ci tënk loolu mooy li nga xam ne vraiment recommandé nañ ko conseillé na ko ñu ngi leen koy ñaax ngeen euh, fexe ba lekk yooyu noonu ngeen mun koo varier te di ko jël léegi nag li nga xamante ne nii nag moom la ñuy euh, euh, faral di euh, di wax nit yi ñu koy wàññi wala ñu di ko moytu mooy lépp loo xam ne dafa niin maanaam soow yu bëri yi wala soos yu bëri yi am na yenn ñoo xam ne yenn saa yi dañuy tàngal xëy na soos bi wala ceeb yi ceeb yi nii nii yooyu tamit dañ koy éviter bu baax suba gi ndax mun na la jox ay maanaam ngay xeer ñeent wala sa biir di metti wala ngay am yeneen jafe-jafe ngir mun a woor bis bi euh, ci ni mu gën a ci ni mu gën a baaxee ci ni mu gën a rafete léegi nag bu loolu weesoo bu ñu wooree ba ngoon jot am na beneen euh, xeetu euh, ñam yoo xam ne moom lañu war a jël ci ndogu bi ndogu bi nag ñu ciy farataal jël benn wala ñetti tàndarma bu weesoo loolu ñu jël boisson chaude maanaam lu nga xam ne dafa dafa dafa tàng am na ñoo xam ne nag xëy na euh, café moo leen di gënal wala ñu jël euh, li ñuy wax euh, kenkiliba mooy sexew bi wala ñu jël tamit te mën a benn infusion boo xam ne mun nañ ko naan mais na doon loo xam ne dafay tàng ngir mun a tàngal biir bi parce que dañoo toog lu yàgg te te lekkuñu naanuñu tamit donc loolu tamit dafay am nekk lu am solo leneen li nga xam ne tamit mun nañ ko jël mooy fonde wala sombi gerte wala sombi dugub loolu yëpp tamit euh, mun nañ ko jël bu fekkente ne nag amuñu fonde wala sombi dugub mun nañ jël pain mburu bi maanaam nag mais mburu bi ñu gën a taamu mooy mburu pain complet bi mooy pain bi nga xam ne dañ ko defaree ak euh, dafa am cox boobu lañ gën a faral euh, di di di conseiller di ñaax nit yi pour ñu koy pour ñu koy jël bu fekkente ne tamit am nga ton wala am nga nen mun nga ko boole ak mburu boobu noonu leneen li nga xam tamit am na solo lool lool lool mooy naan ndox waaye nag naan ndox bi du du n'importe comment nañ koy defee maanaam bu ñuy naan ndox war a ñoo jël benn kaas wala ñaari kaas rek naanandoo ko noonu dañuy jël naan naan naan ndànk-ndànk parce que seetlu nañ ne ñu bëri dañuy am yenn saa yi ay jafe-jafe euh, bu fekkente ne euh, dog jot na ndox bi dañuy dem njëkk a jël te dañuy faral nag di di conseil di ñaax ñi ñuy def ndànk ci ndox mi mun nga teg sa benn kaas sa di nan dank nank ba ba guddi yep mën nga kon mën ngay nan mais nañuy moytu daal di nanando ndox bu bari wala ndox bu sedd torop torop torop leneen li nga xamne ne tamit euh, mën nañ ko jël muy supp supp tamit bu tang lo tamit lu am solo la euh, ak tamit euh, bu fekkente ne defaroo supp tey mën nga defar salade salade bi nak mën na am ay légumes wala nga wala ci nen lo tamit lu ñu farataal la torop ci li nga xamante ne heure ndogu mu mu nekk lekk boo xam ne daal du la sonal lekk boo xam ne dafay léger du la sonal torop li nga xam ne moom la moytu war a moytu mooy lekk-lekk yoo xam ne dafay diis wala lekk mburu bu bëri lekk ay gâteau lekk ay croissant jambon yi tegle yooyu yëpp dafay indi ay jafe-jafe lool lool lool ci suñu xamante ne nii moom mooy suñu suñu suñu lekkin te dafay tax tax nit ki du mën a digérer bu baax yenn saa yi da nga gis koo xam ne dafay lekk ba du mën a digérer bu baax donc lolu tamit nañ ci baye xel bu baax di nan ndox et puis tamit di moytu jus yu am sucre torop jus yi baxna parce que am na ay vitamines mais nañu moytu jus yi nga xamne dafa bëri sucre moytu ñam yi nga xamne dafa bëri xorom dafa bëri diwlin donc yoy tamit nañ ci baye xel bu ñu ndogo ba pare ñu tek ci dir ñett ñaari waxtu ba ñetti waxtu ñu ñu mëna mën donc reer bi nak en général li ñi gëna faral di di conseiller manam li ñi ñaax nit yi mooy ñuy reeree reer yoo xamante ne ni amul diwlin bu bëri amul euh, euh, graisse bu bëri amul euh, suukar bu bëri parce que yenn saa yi dañuy naan ju mais tamit lekk yoo xam ne bëriwul xorom torop bëriwul xorom loolu parce que xorom gudd bi tamit dañ koy war a fa dañ koy moytu ndax yenn saay yi moo indi problème hypertension yi nga xam ne moom la ñuy faral di dégg fii nii léegi nag lekk bi mun na nekk ceeb soit yaasa boo xamante ne ni wala ceebu jën ceebu yàpp yaasa wala lépp loo xam ne daal dafay am day nekk ceeb wala dugub wala mboq wala foñoo sax parce que foñoo tamit am na am na ñoo xam ne dinañ ko mën a dinañ ko mën a am ci yenn zones yi yooyu tamit faral faraltaal nañ ko torop ñu koy ñu koy jëfandikoo soo amee sa yàpp wala sa jën nga boole ko ci bu fekkente ne tamit euh, mun nga togg euh, lentille wala haricot wala ñebe yooyu tamit am na fi mun nga varier du chaque jour nag la ñu war a di lekk ceeb donc war nañ mën a varier ñam xeetu ñam yooyu nag léegi li ma waxoon nag mooy ñuy moytu lépp loo xam ne dafa niin dafa am ni lu niin torop dafa am lu suukar suukar torop ak dafa dafa am euh, xorom torop donc nañ koy moytu bu baax surtout guddi gi ci tënk loolu lañ leen indiloon ci wàllu li nga xamante ne ni moom la ñuy digle ci suñu wàllu lekkin wala li nga xama ak li nga xamante ne tamit moom lañuy wax faral di Euh, tere wala ñu ciy moytu bu baax a baax a baax ci biir weeru koor maa ngi leen di euh, ziaraat bu baax di leen tàggu di leen jox dig daje ba beneen yoon